asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyuwaat leen ziar fii ci euh, Touba Daarul Minan di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanalee mboolem kilifa yëpp mbokk yi tey jii li tax ñu ñëw fii nii moom moo di euh, bés bi nga xamante nii mbooleem maam jaar yi nga xam ne ñooy jàngee ca daara maam jaar yi nekkee ci Poroxaan ginnaaw buñ jàngee ba tëj maanaam bu seen école tëjee dañuy ñëw ñoom ñëpp daje fii nga xam ne moom moo di ci Daaru Minaan ci kanamu sëriñ bi ñu ñaanal leen waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne ñoo di seen waajur mën leen a jël si ngir ñu mën a jël seen i ba keroog ñuy ubbiwaat loolee nekk liggéey bu am solo boo xamante ni mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo yor liggéey daara maam jaara saa su ne ñu ci taxaw temm waaye lu ko jiitu euh, ni ki euh, ñaari fan yi nga xam ne moom lañ génn euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di fanweer ak ñaar ci ay maam jaar yoo xam ne bàyyeekoon nañ ci daara ji ñëw fii nii ci Daaru Minane jàkkaarloo commission bi nga xam ne ñoom ñooy saytu maam jaara yooyu seen jàngu alxuraan uh, fu mu toll ndax wér na wala wérut ginnaaw nag bu ñu ko saytoo fanweer ak ñaar ci maam jaara ñoom mokkal ren ji ci at 2019 bi tey jii nag uh, bi maam jaara yi bàyyi ko Porokhane ñëw fii nii gis ngeen leen mbooloo mi suñu ginnaaw ci seen teewaay ci lañ jël uh, ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a mokkal ñu jox leen seen i lijaasa waaye jox leen ay neexal yoo xamante ni lépp mu ngi bàyyeekoo ci euh, loxo yi ki nga xamante ni moo jiite fondation Maam Jaara bi di ki nga xam ne moo di Serigne Issakha Mbacke moom Serigne Bassirou ànd koog mboolem kilifa yi ñoom fondation Maam Jaara bi ñu liggéey liggéey ba am solo jëm ci daara Maam Jaara ji ku ne gis na parrainage bi taxawaay bi nga xam ne Serigne euh, Issakha Mbacke mu ngi ko ciy def waaye ànd koog mbooleem kilifa yi waaye liggéey ba am solo bi nga xam ne mboolem jëwri yi nga xam ne nekk nañ ci daara Maam Jaara ja ak euh, jàngalekat yi ñu ko fay def soxna Maam Awa Dem directrice des études ak ki nga xamante ni moom moo di euh, sëriñ Abdoulaye Diakhoumpa ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daara ja mbokki téléspectateurs yi tey jii ñu fas yéene ànd ak yéen dëgtal leen lépp loo xamante ni mooy bàyyeekoo fii nii ci bés bi nga xam ne maam jaare yi dajee nañ fii di euh, doon fin d'année waaye tamit ñu remettrale ay diplôme ñi nga xam ne jot nañoo mokkal alxuraan ci atum 2019 bi ñu fas yéene ak yéen ci euh, remise de diplôme yooyu ak li nga xam ne moo di neexal yi waaye it yi nga xam ne moom moo fiy jibee fii nii ci Touba Darou Minane tey yem boo ko jeudi 1er août 2019. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان كفروا بآياتنا الذي خلق الإنسان وعلمه والصلاة والسلام على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله sunu waxtaanu tey dana jëm ci ñaari tomb yu am solo te mooy xam-xam ak teggin xam-xam mooy ndonal yonent yi alayhimu salaam ñoom bàyyi wunu fi alal li nu fi bàyyi mooy xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni al ulamaau warisatul ambiya boroom xam-xam yi ñoo wootu yonent yi alayhimu salaam xam alal day jeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له te mooy nit bu faatoo léppam jeex na bam des ñett muy ab sarax bu mu fi bàyyi woon wala lu mel ni tabax daara wala benn teen ak xam-xam bu mu fi bàyyi ñu ciy jariñu ak doom ju baax ju koy ñaanal xam-xam dafay àggale nit daraja yu kawee kawe sunu boroom subhaanahu wa taala wax na ni shahida allahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist mu ne yàlla seede na moom rekk mooy yàlla ak malaayika ak boroom xam-xam waxaat ni tam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ma ragal ci jaam yi mooy boroom xam-xam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila al janna te mooy ku soobu yoonu xam-xam yàlla yombalal ko yoonu aljanna sunu boroom subhanahu wa taala wax na ni يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات dana yëkkati ñi gëm ci yéen ak boroom xam-xam yi xam-xam ak leer la buy niital nit aw yoonam mu ne fu sa topp yàlla ci lu dul xam-xam sëriñ tuuba radiyallahu anhu wax na ni yaa ayyuha shubbaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal yéen ndaw ñi bu ngeen ragalee gàcce na ngeen xam lu jiitu ngeen di jëf waxaat ni fal ilmu xayru ma bihi isdaana alfata li annahu yukrihimu xaytu ata mu ne xam-xam moo gën lépp lu nit di tarloo ndax dakay teral fu mën a nekk waxaat ni wa man tajarrada li taati aljalil qabla taallumin fa gumrun la nabil ku jug di topp yàlla lu jiitu muy gam ab dof la bu xelluwul teggin nag ponk bu am solo la mooy taaral xam-xam ndax xam-xam du jariñ ci lu dul teggin nit bu réeree te ami teggin teggin ya dana rëbb bu réer ga sëriñ tuuba radiyallahu anhu wax na ni usikum bil ilmi wal amali maa taaddub ala al kamaali moo ngi ñuy dénk foofu ni ñu boole xam-xam ak teggin mu wax ni maa ngi leen di dénk xam-xam ak jëfe te mu ànd ak i teggin teggin nag mooy jëfandikoo lépp luy gërëm ci ay wax ak i jëf nit lu ay tegginam di ka di gën a kawe dayoom di gën dolliku ay mbiram di yëkkatiku moo tax boroom xam-xam yi wax nañu ci lu bari ku mel ne sayidina umar radiyallahu anhu wax na ne ta'addabu thumma ta'allamu mu ne yar leen seen doom te jàngal leen ibnu abbas tam radiyallahu anhu wax na ne utlubil adaba fa innahu ziyadatun fil afli wa dalilun ala almuru'a wa muannisun fil wahdati wa sahibun fil ghurbati wa malun inda alqillati utilité gi ndax day yokkum xel ak nite di wéetal ci boo wéetee di àndandoo ci boo tumurankee di alal ci boo néewlee sëriñ tuuba radiyallahu anhu nee na taaddabu fi alanin wa sirrin ma al aliyi wa xolqihi bil birri mu ne am leen teggin seen digg ak seen boroom ak min deef yi ci lu feeñ ak lu nëbbu dal ni kuy sàkku tuub yàlla ci dul teggin du jariñu yéel na ci bépp jullit mu tegginu ci mboolem ay mbiram te def ko yére bu muy sol ndax amul lu gën a mën a nëbbu ay ayib lu mel ne teggin ak jikko ju rafet ku yar sa doom si ak ndawam su màggee noppal ko waaye jur yi bàyyi luñ fi doom yi lu gën ay teggin sëriñ tuubaa tënkal nanu ay teggin al adabal adaba thumma adaba wa huwa an tabarru umman wa abba wal amma wal ammata wal axal kabir wal cheikha inna cheikha bil birri jadir nee teggin mooy nga baax ci sa yaay ak sa baay ak sa baytox ak sa bàjjan ak sa mbokk ak kilifa ka kilifa googu moo ca gën a yell ku la mag nga teral ko ku la féete ndaw nga yërëm ko commencé ak yow nga def ko ni sa bopp si kàttal teggin mooy gën gi koom ci àddina ak alaaxira yal na nu yàlla wërsëgal xam-xam ak teggin te dolli xéewalam ak musalam ci ki wax ne adabani rabbiya wa ahsana ta'dibi mu ne yàlla yar na ma te rafetal sama yar te mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa tàmbalee ko ci direction bi nekk ca daaray maam jaara poroxaan jaxate jiite leen ak soxna maam awa dem nuyu di leen dalal jàmm di leen siyaara di nuyu jàngalekat yi ñoom ñi nga xam ne seen ab liggéey fa tabaarakallahu moo waral lépp boroom defal leen ndam dolli leen ndam sax la wax ndax am nañu ndam ba nopp ndax seen ab liggéey la boo xam ne suñu boroom moo ci def taw fii xam waaye yombul ñoom ñépp góor ak jigéen noo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal ak waay juri maam jaari yi daayira yi biir réew nga xam ne ñoom ci ndigalul sëriñ bi ay jàngalekat yi alquran lañu di ay haafis nekk fii ci dëkk bi ba noppi itam lëkkaloog waa bi ànd ak ñoom di leen traité teeru di ànd ñoom liggéey bi récolteurs yi nga xam ne ñoom ñoo di jëli ab siyaar soxna ab Mbàkke bokk ci maam jaare yi ak ñu ko bokkal soxna Aminta ak bokk yépp noo ngi leen di nuyu di leen siyaar siyaar presse bi nga xam na ñoom saa yu ñu nekkee ci tàmbali liggéey di yëgle di yaatal ba liggéey bi ñu daat ak ñun teew nii fas yéene lépp fi ruuse ñu tasaarewaat ko ñoom itam noo ngi leen di sant di ci jiital RTS télévision bi nga xam ne réew mi ko bokk Lamp Fall TV Touba FM site inter yi nga xam ne ñoom nañu àndal bokk na ci télévision almuridiya bu dee site internet yi ak minan salaamiya ko ban tàmbalee ba léegi noo ngi rafetlu sunu teewaay di leen ñaanal sunu borom barki Sëriñ Tuubaa mooy moom lañu waxoon ne dañu koy tàmbalee kàddu yi bopp ni ma ko waxee sëriñ maa ngi lay seedeel cant koo xam ne basiru laa ci léegi ma ñu ma ko àndal yoo xam ne at mu jot ma bëgg liggéey bi ñu di ma ci jàppale sa yu ñu woo ma loolu dana ma sawarloo ci liggéey bi ñoom maa ngi leen di baral ak cant tàmbale ko ci bureau bii nga xam ne ñoo yore liggéey bi te Serigne Moustahine jiite leen ak sëñ Moustapha Kane ak ñi ñu ko seqal ñoom ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaanal.